mbokk yi journaliste yi nga xam ne ni tey def ngeen déplacement bi pour wuyu la task force républicaine bi nga xam ne ni tey noo bëgg a waxtaane ak yéen waxtaan ak sénégalais yi sur ay questions yi nga xam ne ni question d'actualité surtout au plan politique mais également économique ñun task force républicaine ginnaaw bu ñu defee jàngat ba xam ni réew boo jël tey ci àddina jafe-jafe am na fa waaye kenn du président de la république Macky ba nga xam ne ni seetaanul askanu Sénégal moom ak i ministre am moom ak i gouvernement am ñu am taxawaay bu am solo pour jël en charge les préoccupations des Sénégalais loolu moo ñun task force républicaine dañuy rafetu lu lool li nga xam ne ni président de la république ak gouvernement am jël nañ ko pour wàññi njëgu dund bi fii ci Sénégal président de la république yemul ci loolu waaye loyer bi bi nga xam ne ni jafe-jafe la ci askan bi wàcce nañ ko tamit te loolu képp kuy sénégalais rafetlu ko ñun task force républicaine ginnaaw bu ñu defee jàngat nekk ay acteurs politiques sunu mission mooy askan bi ku leen defal lu baax ñun ñoo ci war a jiitu waaye gis nañ ni opposition bii ñu koy wax yeewi askan wi ak seeni leader ñi nga xam ne defaluñ askan bi dara lu dul di pousser askan bi surtout la jeunesse pour ñu radicaliser jàmbarloo ak le président de la république loolu ku koy def tu es irresponsable donc di la task force républicaine ñu ngi demander à ses leaders politiques de l'opposition de la retenue ñu xam ne ni Sénégal mbir mi day saxaar waaye du tàkk waaye ku bëgg a taal Sénégal jàppal ni yow la ñuy taal ndaxte président de la république ñëpp xam nañu c'est un homme président Macky li mu gëm la concertation gis ngeen prix yi nga xam ne wàccee nañu du lu ñu imposé Sénégalais approche inclusive woo askan bi woo acteur yëpp ñu waxtaane ko ba ñu nangu wàcce le prix kon bu fekkee tey askan bi nangu nañ ko waaye classe politique bi nga xam ne tey mooy l'opposition radicale amul leneen luñ wax lu dul naan li jarul yàlla bu mu bu mu yegg kon di wax ni ñun task force républicaine ñu ngi féliciter le président de la République encore une fois di ko jaajëfal en tant que président de l'Alliance pour la République ñun task force républicaine dañu wax ne mission président de la République jeexugul des na lu bare ba loolu tax tey ñuy rafetlu tey l'opération vente des cartes bii nga xam ne président de la république suñu président parti moo procédé au lancement demandé tous les militants ñu retourner à la base commissaire politique dem pour jaay carte yi te carte yi cent francs lañ leen kon di ni alliance pour la république ñun task force républicaine li ñu jàpp mooy dem sur matérialiser li nga xam ne mooy l'orientation du président du parti mooy l'animation à la base la task force républicaine di wax ni tey ñu nekk période coupe du monde ñu ngi jaajëfal les lions du Sénégal les lions de la terre ñi nga xam ne tey ce sont les champions d'Afrique seen taxawaay ñu koy rafet di wax ne ñun sénégalais sénégalaise nañu joxante loxo gën a gunge les lions du Sénégal ndaxte am nañu yaakaar ni ndam mën na fa am foofu sa kata di jeexal di président de la république encore une le président Macky taxawaay bu mu am à l'international. La diplomatie sénégalaise tey ñëpp ñu respecté loolu approche taxawaay la te taxawaayu président de la république en tout bu melul ni yeewu askan bi di nga rafetlu li nga xam ne tey président de la république Macky Sall koy doxalee ba nga xam ne képp kuy sénégalais. boo nekkee à l'étranger qui est respecté grâce à la vision ak attitude président de la république Macky Sall kon wax ni gis nañ taxawaayam si li ñuy wax CAP 27 bi bi nga xam ne ni fan yi la woon waaye di rafetlu taxawaayam par rapport à la li ñuy wax la francophonie bi nga xam ne ni sommet bi am na fu ñuy wax Djerba kon di wax ni leadership bu président de la république ñun task force républicaine ñu ngi koy rafetlu ñun waa alliance pour la république ñu ngi koy rafetlu ñun sénégalais yi bëgg sénégal ñu ngi koy rafetlu loolo tax ñu wax ni ñun alliance pour la république ñun waa task force républicaine ñu ngi jox rendez-vous ñun ñu daje sur le terrain encore te yaakaar naa ni dinañu dem ci combat boo xam ne c'est le combat de la victoire ni ko président de wax waxee dinañu wàcc sur le terrain dinañu jaay suñu carte pour la victoire finale incha allah te boobu yàgg jërë ngeen jëf